voilà donc bus bi euh, mooy euh, bus bi nga xam ni moom moo def accident bu métti bi ngeen gis ko nii mu jugee département bu Podor Thioubé euh, Laawa foofu 22 nag ñoo ci ñàkk seen bakkan sur place beneen 23e bi mi ngi ñàkkee bakkanam ci hôpital Amadou Sakhir mbay mu nekk accident bu méttee méttee métti ngeen gis ko nii fii ci Euh, boo génnee Louga rek jëm Saint-Louis foofu. voilà mi ngi noonu bus bii la bus bi moo def accident bi 23 nag ñoo ci ñàkk seen bakkan vingt 22 ñoo ci dee sur le coup 23e bi hôpital Amadou saxiir mbay la daal di ñàkkee li nga xamante ni moom mooy bakkanam. Euh, bari na tamit ay blessé mu nekk euh, accident bu metti biñ fi ñëwee rek am na ci kenn koo xamante ni bokk na ci biñ ko laajee. Euh, nee nañu moom dafa jeg si yàgg rek gis chauffeur bi di dawal oto bi dem gauche droite gauche droite ba daal di xalanku mu nekk accident boo xam ni métti na torop torop torop torop foo ko nattu rek weesu na fa accident bu métti la <clears throat> ngeen gis ni 23 ñoo ci ñàkk seen bakkan bëri na aussi ay ay ay ay ay ay blessé 23 yi nag ki ñu jox xibaar mooy docteur bi moom moo ñu ko xamal léegi donc mi ngi noonu di dem hôpital ngir xoolaat situation bi mu nekk hôpital euh, mu mu mu nekk accident bu metti autorité yi euh, teel nañ ñëw gouverneur teel na ñëw préfet teel na ñëw pour aussi gis nañu vraiment euh, taxaw nañ ci liggéey am liggéey bu am solo gendarmerie aussi gis nañ seen taxawaay gis nañu <clears throat> aussi population bi ñoom it vraiment ñëw jàpp ci mu nekkoon accident boo xam ni metti na lool foo ko nattu rek weesu na fa donc <clears throat> <coughs> loolu moo fi xew euh, <coughs> ñi leen di ñaanal ñi ci ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen xare leen àjjana tàbbi leen ci àjjana yi gën a kawe bus bi mi ngi noonu <coughs> gis ngeen ko bus bi moo def euh, accident bi 23 ñoo ci ñàkk seen bakkan bari na nag ay blessé jamono gii ñuy wax ak yéen bari ay blessé bari nay blessé trop donc bari na ay blessé sapeur nag fii dafa bëri woon deret gis ngeen nettoyé nañ ko lépp ba mu ba mu ba mu ba mu set donc bus bii la moo def accident bi ngeen gis ko nii mu nekk lu metti mu nekk accident boo xam ni metti na trop donc yéen a ngi en fii ci Jacob Post mu nekk xibaar boo xam ni moom leen leen xëyee di xibaar bu tiis xibaar bu metti xibaar boo xam ni foo ko <coughs> natt ci mètre rek foo foo ko natt rek weesu na fa <coughs> donc voilà loolu moo fi xew <coughs> donc foo ko natt rek weesu na fa eh, ñi ci ñàkk seen bakkan nag bari na waaye blessé yi aussi gis nañu eh, fii mu nekk nii eh, docteur bi moom moo wax pour ñu jàllale message boobu pour population bi waa Louga ñëpp rek ku ci mën rek na dem léegi hôpital Amadou Sakhir mbay rek ngir jàpp ci rek te yàlla tax rek daal di may eh, li nga xamante ni moom mooy eh, blessé yi ñu daal leen di may eh, deret donc donc loolu rek la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan pour population bi donc ku ci mën rek ku ci mën rek nga daal di jàpp ci rek te yàlla tax nga dem léegi ci hôpitalu du saxiir mbay yéen ñi nga xamante ni tamit yéen a ngi suivre live bi euh, dañ leen di ñaan ngeen yaatal ko yéen ñëpp ngeen ngeen ngeen yaatal ko ngir population mën ci jot dem léegi ci hôpitalu Amadou saxiir mbay euh, ngir may li nga xamante ni moom mooy blessé yi may leen dret donc message boobu la la la la wax ñu jàllale ko waaye tamit euh, li nga xamante ni mooy kilifa yi autorité yi fi nekk tamit euh, ñu jox ñu ndigal ngir ñu jàllale message boobu pour euh, waa Louga képp koo xamante ni rek mën na dem léegi ci hôpitalu amadu Sakhir mbay rek lu mu gën a gaaw rek nga jàpp ci rek te yàlla tax may li nga xamante ni mooy blessé yi ñu may leen dret ndax li ñàkk ci dret bari na waaye li ci dee bari na torop xamaguñu nag lim bi naka la waaye li ci ñàkk seen bakkan bari na donc loolu moo tax gannaaw ndax bëgguñu image yi génn ndax dafa nekk image yoo xam ne dafa doy waar ba léegi euh, euh, sapeur mi ngi ci liggéey bi di évacuer li nga xamante ni moom mooy blessé yi donc message boobu rek la ñuy ñaan na ko ñëpp yaatal ngir blessé yi pour ñu may leen deret nu mu gënee euh, gaaw ndigal boobu nag la ñu jotee ci docteur yi jotee ko ci li nga xamante ni moom mooy ci autorité yi oto bi nag su ma juumul <laughs> mi ngi jugee côté Podor su ma juumul su ma juumul su juumul dafa mel na loolu la ndax euh, am na ci kenn koo xamante ni mi ngi woon ci euh, blessé yi am na koo xamante ni mi ngi woon ci blessé yi waaye waaw waaw maa ngi direct bi nii am na xaar maa ngi lay woo nii waaye mbaaw trop sax maa ngi lay woowaat nii kay voilà donc loolu loolu loolu la ñu bëgg rek ngir ngeen jàpp ci rek nu mu gënee gaaw léegi Ah, am na ci kenn koo xam ni ci euh, ci la bokk sànq biñ ko laajee accident bi nu mu demee nee na moom dafa jeg si ak rek gis euh, chauffeur bi di euh, mel na lii es xam naa dafa ñàkkoon contrôle ndax dafa doon taw ah, doon na taw aussi peut-être xam naa ni boo ñàkkul talibé glissé wala loolu talibé ni mu taw bi ak bon mu ratax wala donc xamaguñu exact mais nee na kenn ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy oto bi loolu lañu wax oto bi chauffeur dafa jekk si rek di es di es ba daal di eh, xalanku su mu juumul dafa mel na dafa ñu Podor la jóge su mu juumul waaw donc message boobu la ñuy ñaan rek eh, mi ngi noonu ambulance yi gis ngeen leen ñu ngi noonu di yóbbu blessé yi donc dañuy lancer rek waa Louga eh, képp koo xamante ni gis na ko rek nga dem hôpital nu mu gënee gaaw rek nga maye fa deret Euh, ndigal loolu lañ jotagul ci autorité yi jotkee ko ci docteur léegi-léegi rek ñu daal di dem hôpital Amadou saxir mbay rek may li nga xam ni mooy euh, mooy euh, blessé yi ñu may leen dret ndax li ñu ñàkk ci dret bari na ba léegi bus baa ngi ne leen ñu koy tourné ñu ngi nii di jël di yóbbu fële ca gannaaw ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan ñi ngi leen rangale foofu euh, nekk na ci euh, nombre boo xamante ni xamaguñu lim bi exact waaye bari na bari na donc ñi ngi noonu di jël di yóbbu ñi ngi leen di ñaan waa Louga jàpp leen ci rek ngeen dem léegi hôpitalu Amadou Sakhir mbay rek daal di may blessé yi ñu may leen deret donc don de sang boobu soxla nañ ko na yaatu ku mën rek def statut xamal ñi fii mu nekk nii gars yi soxla nañ ko ci hôpital Amadou Sakhir mbay ku fa mën rek dama léegi rek nga may fa euh, direct waaw maa ngi maa ngi ci choc bi maa ngi ci choc bi dama nekk direct dama nekk direct dama nekk direct voilà donc mi ngi noonu loolu rek la ñuy ñaan rek euh, ngeen jàpp ci rek metti na trop metti na metti na lool donc loolu moo taxoon nag euh, ci ndigal kilifa yi ñu daal di euh, reculer ndax dañ pour ñu bañ a génne benn image ndax dafa nekk image yoo xam ni dafa doywaar moo tax ñu ñëw ba ci gannaaw ah xaw reculer ne la ngeen di gis ne leen moo tax zoomuma ko mais juste dañuy def benn message def benn alerte pour waa Louga ñëpp dem jàpp ci rek ca hôpital Amadou Sakhir mbay ba soxla nañ ku ko mën nga statut ah na ko ñëpp partagé ñëpp rek don de sant boobu soxla nañ ko léegi léegi léegi léegi fële ci hôpitalu Amadou saxiir mbay na ci ñëpp jàpp na ci ñëpp jàpp docteur nee na lu gaay yi gaaw rek xeeb nañ ko ndax fii mu nekk nii jamono jii may wax dégg ngeen ambulance baa ngi noonu ñu ngi noonu di évacuer li nga xamante ni moom mooy blessé yi accident bi nag fi mu am mooy boo jugee Louga sortie bi rek ci côté douane bi rek daanaka boo ko rombee tuuti rek foofu la accident bi amee jëm ci yoonu Saint-Louis su ma juumul nee nañu euh, waa ji nee na oto bi euh, bus bi Podor la jugee donc biñ ko laajee am na ci kenn ki nga xamante ni mën nga ne la toog mën nga ne la borom chemise carole bale moom ci la bokk moom nee na dafa jekk si yàgg rek gis chauffeur bi di euh, dem vaille vient gauche à droite ba jekk si yàgg rek xalonku donc te jamono jii ñu doon wax ak yéen da doon taw da doon taw donc loolu lañ bëgg rek askanu Louga ñi ngi leen di ñaan ne ñëpp dem ci hôpitalu Amadou Sakhir mbay jàpp leen ci ngeen dem hôpitalu Amadou Sakhir mbay ah rek ñu jàpp ci rek mën a sauver li nga xamante ni mooy blessé yi euh, li ci ñàkk seen bakkan rek dañ ciy dellu si xamaguñu euh, lim bi exact ndax sapeur seen liggéey waaye gis nañ ñi ñi ci ñàkk seen bakkan bari na bus bi ma nga nële euh, ba léegi Euh, gars yi ñu nga ci liggéey ba donc li taxoon ñu doon defaat live yi nii léegi rek pour benn euh, ndigal loo xam ni jote nañ ko ci euh, docteur waaye jote ko ci kilifa yi nga xamante ni ñoom autorité yi ngir ñu def benn message wax askanu Louga rek ku ci mën rek nga jàpp ci rek te yàlla tax dem léegi jamono jii may wax ngeen dem ci hôpital Amadou Sakhir mbay ñi ngi ci 9h36 minutes donc soxla nañ ko jamono jii blessé yi ña ngi leen di évacuer yóbbu leen fële nga xamante ni mooy ci hôpitalu Amadou Sakhir Sakhir mbay ñi ngi leen di ñaan askanu Louga ak dëkk yi nga xamante ni jege nañu Louga bu ñu mënee rek ku ci mën rek jàpp ci rek jaamu yàlla rek te yàlla tax nga dem foofu ci hôpital Amadou Sakhir mbay ngir may li nga xamante ni mooy blessé yi ñu may leen deret ndax li ñu ñàkk ci dret bari na li fi tuur ci deret bari na ba léegi biis bi ma nga nële am na ñoo xam ni génn guñu ñu ngi leen di génnee sapeur gis nañu vraiment ñëw nañu ñu ngi def seen liggéey euh, ni mu waree euh, gouverneur teel na ñëw préfet aussi teel na ñëw autorités yi ñoom ñëpp ñi ngi fi vraiment di def seen liggéey gendarmerie ñi ngi fi ñii nag euh, ndigal li nga xam ni rek euh, docteur wax nañu euh, ñi ñu def ko ngir wax askanu Louga nañu dem léegi ci hôpitalu Amadou Sakhir mbay rek ngir may li nga xamante ni mooy blessé yi ñu may leen deret donc mu nekk accident boo xam ni accident bu méttee métti la fii la xewee gis ngeen mi ngi ne la ñuy jéem a lengee ngir euh, tourner li nga xamante ni moom mooy euh, bus bi fële la xewee <clears throat> fële euh, fii la xewee kon ci sorti Louga bi